وجاد وجه من تكريمه بانا في سار مولد من في البار ربانا فنكب تي في تلخادم رسول وجعل جميع العلماء الحاملين وجعل جميع عاملين مخلصين وجعل جميع المخلصين ساحدين وجعل جميع سائدين الناسين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 comme la waxoon rek mooy ne dinañu defar benn vidéo boole question yi xam ne moom la mbokk yi am ah, xool naka la ñuy def pour tontu ci incha allah gën ko leeralaat bu baax a baax mu gën a yomb ci ñëpp incha allah donc euh, pour na pas gën a yàggal rek mooy ci tontu bi ñu question bi njëkk a laajte dafa am koo xam ne dafa laajte mu ne moom nii dafa yore business ah, ah, realtor dafay jaay kër wala di di jënd kër he or she is a realtor mu goon xam li nga xam ne moom la jot daaw l'an 2020 Euh, ci li nga xam ne mooy commission naka lay mun def pour mën a nga xam ne su koy IRS di xool wala SBA mm, du ñuy xool du ëpp income pour mu mën a jot li nga xam ne mooy xaalis bu mu war a jot ci 600 euh, euh, dollars yi wala leneen donc pour leeral rek mooy ni. képp koo xam ne danga la war a jox income ci liñ la war a jox comme mu nekk ci 600 dollars yi wala 500 dollars yi njëkk yi wala 1200 dollars yi sax par bi njëkk tàmbale loolu suñ lay jox dañuy xool li nga xam ne moom nga amoon file en l'an 2018 wala l'an 2019 2018 or 2019 ci lolou lañuy xol inshallah pour mën xol nak lañuy def pour mën la jox li nga xamné mom nga wara taxaw inshallah pour nga xool ndax yu qualify or not mais lo xamné ne claim guloo in 2020 mënuñu la ci am benn lo xamné lañ lay pénaliser parce que yow fayaguloo tax for 2020 donc lolou la bëggoon leer rek mais képp ko xamné mom moom nga income Euh, daaw même fekk ne sax li nga meeg daaw moo ëpp li nga meeg 2019 ñoom seen yoon nekku ci ñoom dañuy xool li nga xam ne rek moom nga meeg 2019 ak 2018 balaa ñu lay jox li nga xam ne moom nga war a qualify for loolu laa bëggoon leer xam naa bi ci kanam next question incha allah. waaw bisimilah beneen question bi mooy ku doon laajte mooy li nga xam ne mooy IADL loan bi waxuma la grant bi grant mooy bi nga xam ne suñu la ko joxee mën nga ko bañ a fay. mais loan bi donc dafa nekk loan boo xam ne lu spécifique nga xam ne moom ngay war a euh, digaaleel ak waa SBA donc EIDL loan bi su fekkee ne dañ la ko jox donc it's up to hundred fifty thousand dollars donc mën nga am PPP ak tam EIDL loan at the same time boole ko and you could qualify for it Legi EIDL loan bi su la ko joxee it's up to hundred fifty thousand dollars The boole interest rate be is like three three point seven five percent the donc il your business bu fekkee non profit is 2.75 percent donc euh, loolu tamit bëggoon ko leeral bu baax rek euh, yi nga xam ne mooy EIDL loan bi um, euh, li nga xam ne moom incha allah nga war donc pour leer rek ni 3.75 if you're business owner wala 2.75 as a non profit mën a mosque wala ma nekk church wala lu mu ti donc the rate be 2.75 The mën between 15 and à uh, 30 like between 15 and 30 years profiling yi nga xam inshallah moom dem ci luy EIDL loan bi te aussi tamit you don't have a payment to make up to one year donc bés bi ñu la jox xaalis bi comme tey le 4 suñ la ko joxee tey le 4 janvier ama mun mën nga toog make benn payment ba 4 janvier la 2021 donc they just give you the whole year uh, uh, grace period balaa ngay commencé make any payment Inshallah allah ñu jublu question bi waaye bi beneen question bi mooy ni dafa am ko laajte mooy lan mooy deadline bi nga xam ne nga war a am pour mën a tàmbale file for PPP forgiveness so PPP bi soo war a tàmbale pour forgiveness process bi dafa war a nekk ten months from the time you receive the money uh, for your cover period donc dafay fi nga xam ne fa lay yem um, mooy ni comme ni ñu jox la benn exemple bu fekkee ne da nga amoon eight weeks muy deux semaines uh, asafla uh, quatre semaines muy ñe <laughs> maa ngi jégalu ñaari weer uh, eight weeks mooy ñaari is sa covered period donc yow fu mu toll nii su eight weeks yi mat na donc you have ten months from those eight weeks ma jox la benn exemple bu fekkee da nga tàmbalee janvier lañ la ko joxoon donc janvier février donc à partir du premier mars am nga dix mois from mois de mars pour mën file for PPP forgiveness donc loolu moo la wan ni moment bi nga xam ne la sa cover period yi am am nga dix mois from loolu pour mën a file li nga xam ne moom nga soxla li jëm ci euh, euh, euh, forgiveness process bi incha allah li jëm si sa PPP bu soobee yàlla next question. bi beneen question bi dafa am ko laajte ne bu fekkee ne dafa amoon business waaye mu mu jaay ko wala mu sax jënd business fekke nit ki da nga yor sa business nga jaay ko daaw te business boobu nga yoroon nga file for PPP yow mi nga xam ne yaa ko jënd. yaa ko jaay plutôt te nga filing for PPP il faut nga xool dem sa banque wala beneen PPP provider bi nga xam ne moom la SBA ne war nga jaar ci ñoom pour jot li nga xam ne mooy sa xaalis ci ñooy ngay jaar pour wax la ni jaar yi nga. sa business bi léegi soo leen ko waxee am na benn forme boo xam ne fa ngay war a jaar ak ñoom ak tamit SBA loolu filaat pour wane nekk que yow business bi yoratuloo ko léegi kan moo ko yore ak fa nga war a jaar pour mën a xool naka nga war a def pour mën a am étape yi nga war a jaar pour mën a fay li nga xam ne mooy PPP euh, loan bi nga xam ne moom la la joxoon. donc pour leeral bu baax rek képp ko xam ne jaay nga business na la fexe ni nga xam ne soo paree rek tam amoon PPP. na contact sa banque bi nga la joxoon xaalis bi wala képp fu munti jaar bi fi nga jaar ba jot xaalis bi incha xamal leen ni jaa ngi ko bu fekkee tamit da nga jënd business make sure ki ki nga ko jënd tamit que fekkee ne file na PPP nga make sure kooku dem na notify compagnie bi nga xam ne la jaarloon pour jël PPP euh, ba egg si incha allah ba fi ngeen egg pour jaay euh, jaay business wala jënd business bi euh, next question please. bi beneen question dafa am bu fekkee li nga xam ne lu ñu wooyee proof of documentation ay receipt yi nga war a yore pour mën a euh, file sa PPP ndax dafa war a nekk ci turu business bi wala turu ki nga xam ne moom business bi bu fekkee ne da ngay ba nga doon file da nga file under the name of the business ci turu business bi nga file donc sooy dajale receipt make sure que receipt bi dafa yore turu business bi et non pas the owner of the business. parce que kii moom business bi uta naak business bi itself parce que business nga utiliser a file mën a PPP kon donc lépp loo xam ne da am record wala receipt yoo woon a mën a joxe na fexe ba mu nekk incha allah ci turu euh, business bi nga xam ne moom nga file euh, pour mën a fexe ni SBA am na record bi nga xam ne moom la ñuy njëkk a nga doon jéem a apply for your PPP application euh, next question please bi beneen question bi mooy ñi nga xam ne dañuy yore euh, non profit mu nekk church wala wala euh, euh, wala wala wala wala jàkk wala juma wala lépp loo xam ne ni under the IRS qualification is a non profit danoon laajte ndax ñoom mën nañu apply for the PPP loan wala kii PPP bi wala tamit EIDL loan bi yes you can parce que loolu yëpp dañ ko ubbil ñëpp as long you have 500 employees or less you can apply for it as a non-profit ah, fexe ba nga xam ne incha allah li nga xam ne comme ni nit ñi daan joxe àddee waaye mu xaw a xat mu war a nga war a fay ay bill yu jëm ci yu nekk donc loolu mën ko utiliser pour mën a fàtt yeneen yeneen pax yi nga xam ne macha allah moom la ah, Covid 19 ah, créé nga xam ne bu soobee yàlla lépp dina mën a jaar yoon allah lépp gën a taxaw bu baax a baax but as a non-profit yes you can apply for the PPP as well as the EIDL incha allah li xam ne moo jëm ci business bi macha allah bi beneen question bi boo xam ne ne yi am na ku doon laajte mu ne euh, bu fekkee ne dafa waroon jot daaw euh, premier euh, stimulus package bi yi nga xam ne ni dañuy jox mille deux cent dollars par adulte joxe cinq cent dollars par par child par doom bu nekk mais mu ne jotagul li nga xam ne la waroon jot daaw boobu léegi mi ngi xaar bu fekkee ne dafa faayaloon te jot ko te IRS parce que fekkee da nga yone da nga yónnee sa information yoo xam ni peut uh, être mu nekk compte bancaire bu ñu amoon te mu nga tëj ko wala nga yónnee sa tax sa ñoom jotaguñ ko donc da nga leen di may temps fu mu toll nii même fekkee ne jotuloo li nga xam nga waroon jot daaw ren sooy file sa taxe am na crédit bi la ARS jox nga xam ni comme ni nit ki su naroon jot 3000 dollars suy file tax am ARS euh, koy joxaale crédit 3000 dollars yooyu nga xam ni loo moom la waroon jot daaw te jotu ko donc loolu juste pour wax la fekkee nit ki jotuloo daaw ça pas dire que doo jot ren parce que ARS dañuy ubbi amoon benn am benn exception boo xam ne la ñuy mën a créer nga xam ne nit ki fekkee ne jotul jot àddiyam daaw lu mu waroon jot ci nga xam ne ci mooy li ñuy njëkk a joxe euh, personally donc suy file ren tax am allah. kooku mën na am crédit di nga xam ne la waroon jot boole waale ko ci taxam comme ça IRS fayaale ko benn yoon kon donc moo ni euh, either or A or B euh, regardless ah, fépp foo mënti jaar ak incha jot sa àddi bu soobee yàlla. Euh, kon boog di ñaan suñu borom jàppale ñu baax a baax yokku ñu xewal ñaan suñu taxaasee jëm faal yàgg fi lool ak suñu kilifa diine yëpp suñu borom yokku la xewal bi jaar rasulullah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ba yeneen question ونجنا من شر كل مجرمين واجعل جميع المسلمين ترا لنا أقلا فنكفى الدرا وجاد وجل من تكريمه بانا في سار مولد من في البار فنكب تي في تلخادم رسول jërë جف jëf فيديو vidéo bii ngeen doon képp ku ci bëggaat yeneen vidéo da ngay abonné fii ci TV de la fondation Cheikh Ahmadou Bamba bu Nord America bi nga xam ne moo lëkkale yi États-Unis ak Canada